tat saf wa xayaatin lii wa bustaani nabat kooku la moom lama xayaati lil xayaati laahi rafahtu tawhidi li rabbil alamin wa qudutu amdaahi li ahmad al amin ba dajale lépp ñu jox ko lépp nga ni ko fi kupp di yagari yagari naan da koy wut ci koo xamante ne bi ku gën a xóot mu daw nanu am ful la président Macky yaa ngi may dégg amal sa ful lay bopp yow képp yaa fi ñemee dem naan jërëjëfe Serigne Touba bu dee Touba Serigne sa li tax déggoo ñu biral ko dafa xewul ci man la xewee moo tax ñu koy yelu waaye foo ko waxee sëñ Mountakha wax na ko te bu ko sëñ Mountakha waxee ñëpp wax nañ ko amal sa ful la mos naa ko gis man dinaa la yemal kenn duma ko def wóor na sëriñ Touba duma ko def non man la concerné kuy wax Serigne kuy wax jërëjëf sëriñ Touba duma ko yemale ak ku ko dul wax ku ko ñemee biral duma ko yemale ak ku ko ñemeetu biral amu ci droit bon budul woon ay teggin moom nit sëñ moo yëf yi sëñ Modou Maxtaar laay indi de bu dul woon ay teggin ci bu caaxaan baaxul amin bon mi ngi sunu kanam en tout cas man damay noos pourquoi cent vingt quatre millions jërëjëfe Serigne Touba nañu ma ci soutenir balay màggal ga màggal gi des trois semaines màggal gi des trois semaines la doon ñaan mu ëpp ko man maa war a gën a sant Et nous avons pour habitude, dans chacun de nos discours, d'adopter le même comportement, la même attitude et de tenir le même langage. Nous adressons tout d'abord nos différentes salutations à Cheikh Mouhamadoul le Khalif des Mourides, et à l'ensemble des chiours. Chiours, moins, dans l'ensemble à l'ensemble des élus religieux de tous bords, notamment la famille Mbake et Mboussobe, Fal, Ndjaga, Ndiaye, Sem, Gadjaga, Mbouj, Ngom, Touré, Cissé, ñëpp rek ak mbokki sa aussi à tous les membres de la famille de Khadim Rassoul, hommes et femmes, jeunes personnes âgées. Rappelez-vous le jour où j'avais déclaré dans un de mes discours être la décharge pour tous ceux qui y ont l'intention d'adresser des paroles inadéquates aux membres de la famille de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul loolu kenn fàttewu ko fi